waaw euh, yàlla def na euh, def naa ne sax suba la ñuy tàmbali benn atelier boo xam ni dañ koy consacré couverture bi maanaam suñu génnee ci euh, xalaat ak wax yooyu daañu fexe ba am li ñuy wax note d'orientation maanaam note d'orientation bi dañ koy partager ak niveau yëpp pour defee ñu xam ni ouverture bi ñi lay demee ci conditions yi lañ koy defee waaye it li ñuy wax protocole bu bees ndax yàlla dimbali nañu feebar bi. Euh, mu ngi wàcc bu baax loolu yàlla dimbal nañ ci euh, dimbal nañu aussi ba ah euh, ubbi nañu suñu économie tey jii ah njaga njaay ñi ngi ñu ngi fees dell car bi mi ngi fees dell bus mi ngi fees dell kon loolu am na lu muy lu muy lu muy tekki boo demee aussi ci kër yi wax dëgg yàlla amul benn protocole boo demee ci mbedd mi amul protocole boo demee ci terrain yi xale yaa ngi fa amul benn protocole donc li ñu war a dem aussi mooy xale yi feebar bi. Euh, mënu leen lu bari bu leen duggee it def naa ni du <laughs> du leen daaneel donc yooyu yëpp boo ko boo ko bàyyee xel ah ba léegi aussi ñu permettre les grandes organisation sax léegi permettre nañ ko donc soo yëpp soo ko bàyyee xel nag ah kon na naan sax école xale bi wala élève bi njàngaan bi mu ngi gën a nekk en sécurité ci l'école bi que ci kër bi parce que école ba dina am thermoflage dina am ay ay masque dina am ay ay ay gel yu raxasu te loolu amul ci mbedd mi amul ci kër yi donc Euh, comme nak 4 euh, millions d'élèves élèves dañ na a recevoir évidemment daañu jënd protocole bu bu bees pour que xalé yi puissent faire allah te pour bi du dugg ci ci ci l'école bi.